egg nañ fa situation boo xam ne dafa bett ñëpp mm-hmm. waaw nag man la waaye si seetlu tamit da ngay xam ni situation boo xam ne àdduna bi yëpp la bett ndaxte bu avion yëpp taxawee euh, bateau yëpp taxaw train yëpp taxaw oto yi taxaw ñu naan nit ñi restez chez vous da ngay xam ne loolu dafa nekk situation boo xamante ne perte euh, na nit ñi musu fi am guerre mondiale sax bu mu amoon xam naa ne Europe da gënoon a métti sax peut être Japon nekk beneen côté bi waaye Amérique ak ñi demoon doon nañ liggéey waaye lii moom dafa tënk ñëpp si rester chez vous lépp arrêté mu nekk loo xamante ne euh, fokk mu am changement de comportement changement de comportement boobu pour mën ci survivre pour mën a ci survivre daal si kattanu yàlla euh, parce que jàmm day def pexe rek mais yàlla mooy mooy valider. Euh, donc résilience bi daanaka loolu moo nekk tey tey tey sama préoccupation ak préoccupation képp koo xamante ne yaa ngi si réew mi alors donc euh, moo tax résilience boobu vraiment dañ ciy sawar a wax bu baax mm-hmm. waaw xam nga euh, crise moo am crise sanitaire bi ñëpp xam nañ ni kilifa yi ñu ngi ciy wax kilifa yoo xamante ne ñoom ñooy santé Euh, ñooñu kilifa yu nekk si gouvernement may leen nopp ko defee ñoom ñoo war a jël décision décision yi ci jël aussi ñu ngi décision yi ci war a jël ñee ñu ngi leen di digal lu ñu leen war a digal kilifa diine tamit wax dëgg yàlla bala balaa muy ñëw ñu ngi ñaan di ñaan nit ñi di jox ci ay dog te bu yëf yi ñëwee ñoom aussi ku nekk sa njaboot yaa ngi taxaw di jox ay directive ay orientation kon gannaaw loolu yëpp aussi euh, képp koo xam ne am nga ci xalaat dafay baax nga àndi ko donc résilience mooy ban taxawaay nga war a mën a am ba nga xamante ne yow lii nga xamante ne situation de crise bi fii ñu fiy jógee ak bu bu jeexee tamit ban taxawaay nga war a am waaw euh, bu bu bu mbiri amee ñëpp a woote mm-hmm. dafay woote ne ñu kilifa gouvernement yi président Macky Sall jiitu jël mbir mi def ko boppam mm-hmm. vraiment waxtaan ci aussi ñëpp ñoo xamante ne ñu ngi si langue politique bi woo ci waa réew mi yëpp xamal leen ni dañ nekk si situation de crise donc ku ci nekk euh, na nga fexe lépp loo xamante ne yaa ngi yaa yaa yaa ngi ci di nga def sa contribution loolu tam ku waxal dëgg yàlla aussi depuis lors ñëpp ngi def lu ñu war bon ñun aussi suñu niveau également ñu gis ni euh, dañu nekk si dëkk dañu nekk si réew euh, dañu nekk tamit ay yor ay kër liggéeykaay donc d'abord suñu employé période de crise bu amee comme ni euh, ku ci nekk xam-xam yi yëpp dafay dafay am importance da nga xamante ne euh, man ci wàllu woowu dama gis ni tey ñun ñëpp dañu war a changer comportement tey si parce que doomu adama boo gis rek am na li mu bëgg am na lu mu ragal doomu adama boo gis rek am na li mu bëgg yooyu nag ban taxawaay lañ ci tey dafa jot pour que ñun ñëpp ku ci nekk nga concentré wu si loo xamante ne moo gën a am solo si yow ndaxte loolu la ñuy wax ci tubaab l'extrêmement important l'extrêmement important mooy la xamante ne lii bu sottiyee rek sa mbir yëpp baax ci kattanu yàlla waaye tamit l'extrêmement urgent mu mooy koo gis aussi am na lu lay menacer mooy l'extrêmement urgent mooy loo xamante ne bu bu bu xewee moom mbir yëpp yàq donc tey dafa laaj nii ñi gën a tënkuwaat parce que période bu ñu leen dem avant Covid bi suñu waxante dëgg rythme bu réew mi àdduna bi doon demee mm-hmm. rythme bu accéléré la boo xamante ni ñu bëri mënuñu ko topp mm-hmm. bon day mel ni taxaw nañu tey ku ci nekk delluwaat nga si sa njegenaay mm-hmm. waaw reculer nga euh, ak reculer boobu nag d'abord taxaw la pour xool fan ngay jëm donc si tënk daal kawo moo am mais kawo boobu lu muy jóg mooy transition transition vers quoi si beneen façon boo xamante ne du bokk ak ñu ñëpp ñu doon doxalee suñuy mbir parce que ku ci nekk sa njëganaay am na lu mu la yett kon kër liggéeykaay yi euh, lu tax euh, tey liggéeykat yi ak kër liggéeykaay ñu war a changer seen taxawaay parce que kër liggéeykaay boo fa demee motivation yi bokk da ngay gis ñoo xamante ne bon ragal ko leen dàq mooy mooy loolu loolu ñoom la ñuy donc xam nga kooku bon bu patron bi teewee mu góorgóorlu bu joxee ginnaaw mu nekk si lu ko def yooyu dafay delloo en boo demee aussi am na yeneen catégorie yoo xamante ne ñoom luñ ci am rek moo lañ ci intéressé bon tant que yaa ngi ciy laal dara rek c'est bon mais entreprise bi dox na doxul sa yoon nekk donc tey boo xoolee catégorie yooyu dañuy dañu war a changer comportement comportement bi mooy ñu def engagement du ko joxe seen kattan joxe seen xel ak seen xol surtout si liggéey bi parce que période bu ñu leen jëm bu ñuy jëm si fële loolu la laaj comme yeneen réew yoo xamante ni da jógee si woon si guerre ay Rwanda yi jóge woon nañ si guerre mais noonu la ñuy def tey Rwanda mu ngi nii mu ñu alors que Rwanda bu ñu koy créé ñun ñu ngi nii dafa ñu ngi koy fekkee nii comme dem yeneen boo ko deful ñeneen dinañ ko def boobaa yow da ngay des ginnaaw mm-hmm. man li may digal képp kuy liggéeykat tey bu liy paasee gannaaw sa kattan gannaaw sa xel jëlal sa xol bi yëpp nga jox ko liggéey ndaxte il faut que ñu yokk def si wàllu liggéey bi ndaxte loolu moo war a waa loolu moo war a tax entreprise yi jëm kanam loolu mooy mën a yóbbu réew mi si kanam waaw donc loolu moo nekk loolu lay conseillé taxawaay bu bees boobu lay conseillé kër liggéeykaay ak liggéeykat yi. Mm-hmm. ñu ñëw waaw waaw loolu buñ sañoon loolu la ñëpp di wax. waaw ñun ñu wane loolu la ñëpp war a wax. waaw xam nga liggéey moom muy liggéey bu mënti doon. Euh, dana am ay jafe-jafe ci ñàkk. waaye lu ñu mën a wax ci habitat social ñun ambition lañ ci am ambition buñ ci am mooy nekk leader en matière d'habitat social ci Sénégal parce bariwul lu ñuy wax ay chiffres parce que wax sa liggéey si boppam nekkul loo xamante ne dañu xaw a nekk à trop mm-hmm. parce que koo xamante ne euh, fi mu ne nii euh, yaa ngi presque jege mbaa romb dix mille terrain mm-hmm. si ay doomu aadama xam nga ñu bëri mënuñu ko xalaat mm-hmm. waaw pourtant ñun ñu ndaw yi liggéey nañ lu mel noonu te euh, nu mu ñëwee mooy nii parce que loolu foog ma raconté ko nit ñu comprendre ni mu ñëwee mooy fii en deux mille man gannaaw ma fi nekkee depuis deux mille quatre-vingt-dix en 2017 lotissement ci lañ def mu fi problème bu amal espace parce que lotissement bu mujj bi moo nekkoon teeru mbali man dama dëkk ak ay nit samay employé sama njaboot samay àndi jàmm yoo xamante yu bëri ñu fi amuñu kër man yàlla def na am naa kër waaye kër fii période jënd millions la jëm kaw ma gis ko continuer man rek may am kër ma gis am kër loolu moo tax nag ma ne xaar ma dem xool génn tuuti mbuur jéem a taxaw ci laa dem nag dajale quelque personnes ma ne leen man daal dama bëgg daal dama am njaboot boo xamante ne fi mu ne nii lotissement yi def war borom tool yi bu ñu defee lotissement euh, bu dee dañu bëgg jaay man dama ko bëgg a di ko jënd di ko njaboot ñu commencé par cent soixante quinze mille kartam bi du buñu commencé 175 000 francs lañ commencé jaay terrain té ñu ma ñu béré béré béré am nañ ci parce que ci télé lay wax mm-hmm. bon non lañ avancé ñu après ñu dem 200.000, 000 après ñu dem 300.000, 000 non le par 50 000 par 25 000 mm-hmm. mais danaka buñuy mujjé parce que début 2000 euh, fin 2019 bi ñu ngi ngi presque à 450 bon lolu dafa yom mm-hmm. bon alors donc mais buñu démé bé ci kanam ay 2013 ma gis bi fi mu ne nii ah wax dëgg yàlla gis naa ne ñëpp yaatu na donc ma jël xale yu ma yor yoo xamante ne jàng nañ man leen lii kat jël leen ko ngeen liggéey man maay encadré rek donc loolu moo tax tey ñu mel ni comme ñoom Abdou Ndiaye nga xamante ne ñooñu pratiquement ay maîtrisards en droit ay doctorants lañu mm-hmm. moom mooy directeur bi mel ni ñoom Asim Ndiaye nga xam ne ñooñu ay diplômés en communication lañu yeneen xale yi nekk taxaw seen wet taxaw seen ginnaaw leen jàppale bu dul dara sax fi mu ne nii boo xoolee traitement bi du mu ngi doon presque quatre-vingt quatre-vingt nit di liggéey gannaaw suñ suñu ci liggéey bi donc bu dul dara sax noonu la mbir yi ñëwee léegi ñu nekk ci muy avancer di gaaw di dem di dem di dem ba ñu gis ni tamit Casamance laaj na aussi même problème ñu dem foofu tamit depuis 2014 euh, su commencé woon nañ ko mais 2016 lañ fa installé wu. non yemul nañu def nañu def nañu Ziguinchor bu ñu defee Ziguinchor foofu ñu fa am benn lotissement boo xamante ne si presque deux mille terrain la au niveau de dem nañ tamit département de Goudomp également foofu biir commune de Kaw foofu tamit liggéey nañ depuis cinq cent terrain dem nañ ci waawoon également jamono yooyu si ndigalu suñu kilifa bi Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine radiallahu taala anhu yal na yàlla yokk leeram si jamono yooyu moom it aussi si kaw ndigalam ñu li def fa benn programme pour daayira rey pour taalibe yi d'ailleurs ñu ngi envisager encore euh, delluwaat foofu pour euh, waaw incha allah ñu ngi déployer am na nag yeneen zone yoo xam ne dañ fay liggéey ak partenaire bu ñun ñooy yoree kii bi mais dafa am ko xam ne day yor marché bi ñun ñu financé ko euh, yu mel ni comme ay CIU ay yeneen dëkk yu mel noonu am nañ partenaire boo xamante ne waaw ñu associé ak keneen parce que moom la nit ñi di gis mm. mais Kartambi du mu ngi si ginnaaw si si bu bëri si si réew mi mais bon ñii ñi nag partenaire bi lañu ñooy liggéey liggéey bi si ëpp. voilà moom moo gës. waaw waaw waaw loolu la donc. léegi offre yi moom chaque mois lay doon wala chaque année xam nga fi mu nekk nii euh, yàlla dafa def euh, offre yi sax li ñuy def nii yàgg nañ ko def du lu bees mais dafa fekk tey jamono dafa changé xam nga jamono tey euh, dafa andi technologie. ba nga xamante ne tey offre rek yooyu foog nga yóbbu aussi si marché bu gën a rëy muy muy internet tey parce que tey télétravail bi dafa ñu imposé lépp lu ñuy def ñu yégal ko moyen bii lañ mën def pour mën a yéeg nit ñi alors que bu njëkk ba euh, liñ fiy def yëpp daan nañ ko def te soxlawuloon publicité sa soxlawuloon sa nit ñi di ko jaarale fii mais tey jamono moo ko laaj parce que ku nekk a ngi toog këram nit ñi mënuñu déplacé wu nit ñaa ngi sore tey loolu moo tax tey ñu of offre bu bees boo xamante ne euh, wax dëgg yàlla jàpp nañ ni euh, ñëpp war nañ ci mën a gis seen bopp ñëpp war nañ ci mën gis seen bopp ñu yor ñu yorul ñu ndaxte habitat social bi moo ñu ñor euh, donc euh, loolu moo tax euh, ñu lancé ko ni pour que ñëpp xamee ni crise bi am na jafe-jafe am na waaye ñun Kër Tambadou tey tey lañ gën a taxawaat ah si habitat social bi tey lañ gën a taxawaat pour jàppale nit ñi si lu ñu nekkoon tey lañ ci gën a farlu voilà donc loolu mooy moom mooy expliquer un peu bi lu ñuy def que tey bu ñu nee nañ leen cotiser ñu wax ñu ne cotisation bu waxtu cotisation jotee doo leen gis. bu bu affaire bi jeexee di nga leen di gis bu facture ñëwee am si kër gi sax day am dama na xam ne bu mm. facture bu tàng ñëwee si kër gi sax dañuy raar bu yëf yi sottee ci la ñuy ñëw. te duñ ko ñaan. waaw ah waaye loolu seen seen seen nature la. Mm-hmm. waa xam nga donc yàlla loolu dama lay won ni nit ñi bokkuñu façon ni seen relation ak xaalis boobu. ñii dépensé rek lañ ci xam ñii moom génnee ko duñ ko def waaye ñii tamit fuñ ko fuñ fuñ ko woote duñ ñëw même bu xew amee sax bu lépp réglé ci la ñuy doog a ñëw donc ay fuyaar la waaw loolu moom loolu moom soo ko xoolee sa même temps xale buñ nee ñu cotiser day am ñu mel noonu duñ nañu fexe ba duñu cotiser waaye bu feet bi jotee non non si nature si nature nit la type la type la rek dañ xam nga yàlla nu mu bindee doomu aadama bokkul mais ci gën a am solo mooy nga xam yooy yaay kan yow si ban nga bokk est-ce que yow ci dépenser nga bopp parce que ku dépenser tamit moy ko ko xamné ne manam bo démé supermarché nga amone ben 100000 ngay damay dem jënd ben tandarma bo war la boo duggee booy génn ci daanaka di nga dem ba ba xaw fa am bor donc xam nga lolu yow bo doon dem lool nga prévoir ko xélam bi dafa xaw a param-param tuuti waaw dafa xaw a tasaaro waaw dafa tassaro manam ñoo ñu seen dañu nit yi tassaro lañ mm-hmm. waaye am na ño xamante nak ñom mom joxé mom dëgg yàlla moom kooku euh, problème la problème la bon ñu bëri wax lañ ci sax du ma ci sore parce que voilà ñun surtout ñun góor yi waaw surtout ñun góor yi si la si la ëppee waaye ñeneen ñi nag ñoo xamante ne ñooñu moom daaw responsabilité rek la ñuy mais c'est que nag man tamit ñoom tam danaan blâmer xam nga jigéen ñi parfois il faut ñuy fay loolu ne sax boobu loolu tamit loolu la man leen man man leen boo bëggee seen xaalis yi mu barkeel tamit dee leen yi say waaw parfois par par exemple ñu benn exemple mhm. da ngay def jigéen yi suñu demee marché ñu ñëw tey marché bi nax mbaatee man leen nag marché bu naxar nekkul te nax xam nga lu tax parce ñun lu ñu bëgg mooy que parfois boo demee marché bi bu neexee nga ñëw nga ne góor gi ah suba de jarul ngay joxe ndaxte tey dem naa marché bi neex na waaye marché bi neex marché bi naxadi jigéen même bu dee neex na naxadi na yow toujours yaa ngi joxe rek <laughs> waaw loolu nag jigéen ñi xam nga si li neexul waaye nag bés bu neexee. ngeen ngeen nañu suba bul joxe. am mais man de loolu ma ko dégg. marché bi nag neex na. déedéet bu dee marché bi neex na nga ñëw ne bon suba moom jarul. point faible mais si point faible góor point faible la jigéen ñi foog ñu xam benn loolu dafa nekk si moom dafa samp si moom te dara mënu ko xalaat ak yedd ak dóor ak mënuñu ko changé mooy lan mooy góor point faible la mooy dafa bëgg jigéen nag bon donc xam nga loolu boo ko xamee loolu foog mu maîtriser wu foog loolu mu maîtriser wu ba pare bu démé bé dal ci la jamm di bëna am parce que loolu bu doxul mom man ma la wax ni jamm bu ta donc jigen na xam loolu nit ki dañ ko moñalé pas parce que dafay gàtt xel dafa la mais boobu moom dafa nek affaire bo xamantene il faut que non la ko yalla bindé donc xar bobu loolu mom bu yëngo rek pour jàmm il faut que mom mu calme pour jàmm am waaw loolu moo ko ñu wax ko wax sorewul foofu sorewul foofu sorewul sorewul foofu sorewul foofu daal dafa sore mais li ñu koy layee woy euh, dama ko waxoon mu kii nii alors que affaire bi foofu la problème yi jógee maanaam da nga xam ne point faible góor foofu point faible góor te fa ku maîtriser foofu yow foo ko jubal rek dafay dafay la wax macha allah sa léegi côté jigéen yi aussi euh, ah. jigéen yi aussi euh, ma yeggali foofu tamit ñoom tamit xam nga jigéen point faible am mooy parce que jalousie mo mën a ci mom moom ab coxor goo xamante kenn du ko mën a jalousie bop moo ko yeneen yëpp mën na ko mais jalousie tam mom tamit non la ko yalla bindee góor itam il faut que ñu comprendre lolu si jigéen il faut ñu comprendre ko parce que jigéen wa mais quand même mais quand même jigéen mais loolu mais jigéen bu wa so mënee fiir na mais jigéen bu defee lu exceptionnel loo xam kenn mënu ko ko toléré mm-hmm. soo xoolee ci gën ëpp ci jalousie la mm-hmm. mais nak ma mën a moi, ñëpp mooy xam nga comme relation parce que relation dafa am ñaari volet ba renforcement de relation ak restauration de relation renforcement relation mooy loo xamante ne euh, relation amna mais ñu fexé comme terangay ziar naa la nit ñi defaral terangay no ñu defaral loolu dafay renforcer relation waaye tey ku mën relation dëgg moo koo xam ne am na restauré relation mooy restauré relation boo xam ne yàqu na diggante boo xam ne yàqu na diggante boo xam ne problème am na nga am capacité déparaat ko loolu mooy mooy tax sëy mu far sëy nobeeloo diw baax na woo defal naa ko woo loolu yëpp pour man euh, waa kon mais surtout waa surtout nag am capacité restaurer parce que aussi foog kenn jël yàqu na ma am capacité de restaurer capacité de restaurer nag loolu nag mooy defaat relation am nga yar nit am na nga bu ñu yàqoog nit à si ku jigéen ki parce que problème bu amee moom ñëppay souffrir mm-hmm. waaw mais nag nit ñi am capacité mën a ñëwaat àndaat loolu mooy nekk si parce que nit yi ànd comme ni ñu ko waxee ba ñëg lamiñ il faut problème am bu ñu naxantee biir sëy problème dina am dina amaat bu ko arrangé dina am dina amaat dina amaat amaat waaye luy tax mu mu mu mu continuer mën a yàgg capacité de restauration boobu ku ko amul sa relation donc loolu lañ ku nekk war a jàng tey muñ ko def ko te loolu tamit pardon bu sincère mën na ko pardon bu sincère mën na ko xam nga am na pardon sincère ak pardon rek parce que pour situation am na def nga vote moo ñëw demal fee waa jégal ma ma ku ma nee jégal ma ne jégal naa la waaye pardon bu sincère dëgg nga ñëw su comme naa ak yow nu ñu toogee nii ma ne la te mu egg sa xol ma ne la jëggalu naa la sincèrement dina egg sa xol te loolu dootuñ ñëwaat donc pardon sincère nañ ko jàng parce que dañ koy gis souvent si film yi c'est sincèrement mais pardon boo xamante ne ñun mbaa problème am na nga jàpp ni nga doo kaañ dem nga dem jubóog diw bu mu ñëwee mu xool fale

yi yi dañ koo tëjul xawoon nañ koo tëji yi passé am nañu tëji kon am nañu tëjul yow loolu ba jàkka waaw xam nga mbir mi sa daanaka jàkka yi tëj nañ leen rek mm-hmm. ubbi bi tamit boo xoolee dafa ànd ak ay restriction yu métti léegi ñu ko mën a assumer bon mën nañu ko assumer am na ñoo xamante ne jàpp nañ ni mënuñu ko assumer moo tax man noonu laa noonu laa noonu laa ko laa gisee mm-hmm. jàkka yi moom tëj nañ mais nag euh, ubbi bi am na ñoo xamante ne vraiment restriction so xolé distanciation bi boy dem nga jël sa nat nga yóbbu ko ku mën loolu mm-hmm. alhamdulilah loolu kay problème amu ci euh donc euh, je pense que kilifa diine ku ci nek jël na monter na au créneau parce que mbiru diine mom nañ top ci gannaaw man loolu laa gis nañ top ci gannaaw parce que ñom ci position bu ñuy nekk luñ ci xam ñun mënuñu ko xam té aussi mbolo mi lu nit ñi ñu ngi def jub euh, seen nat loolu aussi ñëpp gis nañ ko bon loolu sant yàlla sant yàlla man noonu laa ko gisee amul benn problème. léegi ban message ngay lancé yi parce que jamono ji ñu toll nii booy xool am na ci xam ne du dëgër mi tamit euh, yombul trop tamit vraiment yombul xam nga nit ñi bokkuñu éducation mm-hmm. parce que réew tamit nit ñi bokkuñu éducation nit ñi tam bokkuñu wërsëg bokkuñu situation loolu moo tax sa dayoo bi fi amee. Euh, da nga gis ni nit ñi mobiliser nañ ay moyens yu rëy pour dimbale ñan ñu new doole donc dès le départ rek xam nañ ni am na ñu new doole donc différence boobu amee si noonu noonu la melee si ñeneen waaye nag boo ko si de façon général quand même il faut ñu reconnaître ni ñi def nañ effort mm-hmm. mais pour de cent pour cent nag dafa amul fenn cent pour cent amul fenn boo xoolee moyens yi ñu mobiliser pour loolu nit ñi respecté ko yow ko les forces de défense et de si réew mi yëpp xeex yu ñu ci def dès le début ay ci ñàkk malgré ça terewul euh, bu doon sax euh, pour mu bañ a am pour cent am man si lu gis quand même defe naa nit ñaa def effort quand même si côté waaw vraiment dëgg bi sax waaw euh, sama dernier message nag mooy xanaa di gërëm ñëpp ñoo xamante ne ñu ngi suivre Kartambadou TV mu nekk chaîne bu bees boo xamante ne ñëpp a ko mom. ñëpp ko ñëpp ko te aussi di di leen la remercier yow tamit ci invitation bi euh, di la xamal ni aussi incha allah chaque jeudi incha allah dinaa ñëw fi def waxtaan ndaxte njaboot gi dafa soxla fi ñu toll nii parce que ñun mag itam bu ñu demee tëdd suñu néegi ne way way way non non ñun bëgguñu kenn dégguñu tamit mën na loolu tamit bu xale yi bu ñu la dégluwul dinañu déglu keneen te lu muy mujjee du la neex xale yi bu ñu la dégluwul dinañu déglu keneen te fu muy mujjee neex donc nañu def effort tamit. di wax ak ñoom parce que tey moyen bi moo am euh, di wax ak ñoom di leen di kii donc ñu leen di jox rendez-vous chaque jeudi incha allah man si ama Tidiane Tembe du dinaa góorgóorlu ba ñëw mën a def waxtaan ak yéen si yeneen thème ak euh, sama jabar ju ñaawul bi Kumba Touré muy sama sët boo xamante